Euh, kilifa gi nga baal ma fàttali ma tur bi tuuti. Euh, man Ousmane Ndour laa tudd waaw euh, ñu ma woowoon fii en tant que ku bokk ci association des promoteurs bi Ablaye Diop jiite waaw ma ñëw fii tey nag en tant que promoteur parce que bureau promoteur bu bees bi membre laa ci en plus ma bokk ci commission bi nga xamante ne moom la ñuy wax commission contagie waaw ci li ngeen di laaj nag lan moo waral ay nit ñi dugg ci biir salle bi ba pare mu am ñi ñu génnaat ma bokk ci ñu génn euh, ay mbir la rek ci biir dinaa leen ci wax tuuti nag mooy sama présence fii dafa am ñoo xamante ne ci kilifa yi nekk ci biir CNG bi la ñu bokk mais sama présence moo leen arrangé wul. li tax arrangé wul li tax mooy li tax arrangé wu leen mooy euh, xam ci man loo xamante ne xam naa ko te sañ naa ko wax te man wax fu ma fekk. la ma ca wax dinaa ko wax nit nag euh, bu yoon jeexul waaxu sil du jeex waaw comme que lii dafa am nii léegi léegi léegi léegi euh, moo tax bugguma réaction bi sax gudd mais li ma fi tax a génn xam naa ko ndax boo ne dangaa woo promoteur de litte sans frappe nga woo président ba ne ko yow ak cinq personnes président bi mu ko wooyee balaa ma woo kenn def ma woo ne ma buñ ma wooyee nii yow laa njëkk a woo cinq personnes la ñuy nekk nag waaye nag deuxième personne kii topp ci man yow lay doon avant tout d'abord ma ne ko ah mu ne waaw ma ne ko am ah mënoo seet yeneen mu ne ma non non en tout cas kontel sa bopp balaa ñoo dem fen ma ne ko nag léegi boo paree nga woo Jax bu disponible mu ñëw parce que ko kenn mënu wax li sans frappe te waxu ko te waxoo Jax mu woo Jax après mu woowaat ma ne ma wala Jax accordé na ma ne ko sa secrétaire dafa war a dem muy Yacine doomu Pa Ambroise waaw mu ne waaw kooku dina dem après woo ko kooku accordé encore waaw mu ne ma xaaral ma xool euh, Josephine Bassa ma ne ko ah mu ne ma waaw ma ne ko voilà ba tey loolu baax na noonu jub na ah léegi nag bu ñu ñëwee ba fii ñu ne am na ñoo xamante ne du ñu ay promoteur ku nekk présenté wu man euh, ñu bari fii man maa leen njëkk nekk promoteur man maa njëkk a te la preuve est que li ma la expliqué léegi comme euh, bi ñuy renouveler association bi man maa ngi nekk membre ci association de promoteurs be pare en plus bokk ci bokk ci commission contagieuse bi yaa ngi dégg man bu ma fàttali ko teg naa lamb sept fois kooku mën nañ ko wax ne du promoteur de lutte sans frappe yor naa yor naa benn licence promoteur boo xamante ne Ndiame Diop boobu nekkoon ci biir di wax Ndiame Diop jënd naa licence promoteur ci moom lu dul benn yoon renouvelé naa ko renouvelé waat ko renouvelé waat ko waaw ci gattal daal euh, mbir mi xam nga lan la dafa am ñoo xamante ne sama présence arrangé wu leen. ñooñu ñan la mun nga leen wax. Euh, pour le moment xam nga wax ko sax du ngóora. Hmm. wax ko du ngóora mais comme que réaction à chaud la euh, damay bañ a juum te xam ne wuñu ma may wax di wax yenn njuum tey mais xam naa lan la. mais nag euh, comme que xam nañu ne man dañ maa woo man nee naa leen ku ma xam-xam ne man ñàkkuma ñàkkuma fuñ ma woo balaa may foraatu di wuyu woote wuñ ma woowul. léegi président président wu promoteur yi. président wu promoteur yi ki nga xamante ne moom moo jëloon responsabilité woo ma man mënoon naa taxaw ne ma ki ma indi fii bu ma naree génn moom day génn nag man mais yooyu yëpp dafay mel ni daa am looy dàq te gis nga fii aw ma dara lu ma fiy dàq euh, mënoon naa waxee neneen mënoon naa defee neneen mais comme xam naa bu ma génnee dem. moom en tant que président Abdoulaye Diop bi ma woo moo ñëw ba ci man ñaan ma ne ma kaay kaay ma xam ne daa bëgg man ma jóg mais mënoon naa wax ne critère bi nit di yor pour nekk promoteur critère yooyu yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp dafa mot. kon Birasène bu fekkente ne dafa xamul bu bu fekkente ne dafa xamul na xool ci document wu CNG yi administrativement dina xam gis nga liste bale encore dina xam fan la ñu jëlee liste ak kan moo ko bind. parce que bu fekkonte ne Abdoulaye Diop bi ma woo moo ko bind xanaa dina ci def sama te liste boobu daa am fu mu jóge man li ma jaaxal mooy promoteur lit avec frappe bi. ñëpp la ñu woo kullu kuy promoteur. pourquoi lutte lutte simple bi ñu dajale ci ñett promoteur ne ñeent juróomi promoteur lañu bëgg a la ñu la ñu invité ñoom ñoo war a ñëw ci réunion. waaw xam nga loolu yëpp comme euh, li ñuy wax rek xam nga depuis daaw. nit ñaa ngi dégg ñu ngi koy wax. ñu ne gis nga gis nga làmbu Sénégal dafa nekk ñaar dafa nekk ñaari facteur muy lutte avec frappe ak lutte sans frappe ñu ne nag cer bu lutte avec frappe am lutte sans frappe def ko am lutte avec frappe ni mu amee promoteur noonu la lutte sans frappe amee promoteur maanaam étiquette boo gis ci lutte avec frappe rek am na ci lutte sans frappe kon gis nga saa boo ne promoteur de lutte avec frappe gestul nga ne promoteur de lutte sans frappe saa boo ne amateur de lutte avec frappe gestul nga ne promoteur amateur de lutte sans frappe ba ba ba ba mën a muy jeexee ba ci mbër yi am na mbër lutte avec frappe am na mbër lutte sans frappe yaa ngi dégg. kon fu ñu wooyee fu ñu wooyee beneen côté rek dañoo war a gëstu beneen côté maanaam loolu mooy am di continuer di am day am day am des fois ci amateurs yi day am des fois ci promoteurs yi ba gis nga ko situation bi ñuy wax nii ci wàllu lutte avec frappe bi ba ñu koy wax xel sax xalaatul lutte sans frappe parce que bu ko xel xalaatoon. ñu ne lutte sans lutte avec frappe dafa am critère bu ñuy wax ne ku ko remplir war nga cee bokk maanaam boo boo régulariser woon sa combat et cetera et cetera paas yi di jaxate dégg ngeen ko lu mu wax ci biir kenn amul lu mu ci dindi. ah mu ne maanaam na nit ñi di bàyyi wax wax ay promoteur u Dakar ak nangam nangam promoteur yi nekk dakaar yëpp maanaam kenn ñaanu ko yàlla Dakar bu takkoon tey ñoom ñëpp ay bokk benn yoon génn Dakar dem te moom euh, promoteur yi nekk dakaar licence bi ñu yor. moom la yor di ko def comme nooñu muy def kon bu ko nit considéré moom dafa xam ne ñëw fii di xëccoo ay date fii Dakar pour tëgg a combat na décentraliser dem côté Thiès comme kamin na foofu xam na foofu kon xam nga loolu leer na maanaam daal euh, li ñu bugg a wax daal en grosso doo mooy nit ñi nañu invité nañu éviter lobby gis nga lobby baaxul ci benn mbir léeg-léeg nag nga nekk kilifa mu am lobby bu la wër te doo comprendre te doo comprendre day dal kilifa Sénégal yëpp nag. la preuve am na ci début saison bi balaa ñuy def CNG bi ñuy convoqué ñëpp mais li sans frappe déggoo kenn kuñ ci convoqué du amateur du promoteur du mbër du dara du tus ba def benn sorti ñu soog a profité wu di woo ay nit maanaam woo à waa arène adressé te ba def suñu deuxième sortie bi ci loolu. bi may woowoo paa yi di leen wax ni dinañu def benn réunion bu ndaw comme que dëkk bi day bañ dajaloo dinañ def benn réunion bu ndaw quelques personnes rek pour def benn sortie comme genre point de presse pour ñàkk a woote bi ñu ñàkk a woote lutte sans frappe paa yi ne ma ñun sax kenn woowuñu a tant que association boo xam ne ñoom ñoo yor arène adressé ngor bi nga xamante ne moom mooy géewu lamb simple bi. gis nga le jour là bi may woo paa bi mu ngi nekk ay côté 14 heures balaa 17 heures ñu woo leen mu ne loolu mooy woote woote bi weccee. li ñu waroon a woo mëndu li sans frappe yëpp xam nga loolu yenn wul maana seulement nit ñi nañu xam ne euh, comme ni ñu koy waxee rek gis nga Sénégal gii yow ak loo mën a am ak loo mën a doon dangaa yor nationalité sénégalaise ma yor nationalité sénégalaise kon ñun ñëpp ay sénégalais lañu. yaa ngi dégg yeneen critère nag ay mbir la rek ci wàllu àddina ku nekk am fu mu jëm mais na nit ñi xam ne ñëpp dañoo dañoo dañoo égalité gis nga promoteur de liste sans frappe kii amul ne kii promoteur bu mag la. di jënd euh, licence ci cent mille kii nekk promoteur bu ndaw di jënd licence ci euh, moyen de cent mille francs amu ci ñëpp a yem gis nga nag man dama bëgg euh, Bira no Njame Joobo maanaam ñi wax ne maanaam képp ku nekkul promoteur bokkuloo ci woote bi dama bëgg nañ ma indi benn critère kese kese kese boo xam ne promoteur de lutte dina ko remplir te man remplir ma ko benn critère kese laa soxla. mënuñu ko critères yi promoteur de lutte euh, lutte euh, sans frappe di am yëpp critères yooyu yëpp maa ngi moom parce que li mën naa la ko sànq gis nga kilifa nag gis nga booy wax benn mbir daa am foo koy teg ngir yàlla ak yonent bi kilifa warul wax ci luy naaw nii ci ngelaw li pour rien du tout loo xam ne buñ la laajee mën doo indi preuve nag euh, li ma xaw a métti ci moom tuuti rek mooy dinañ ko tromper ci lu bari na def tu na def na def attention gis nga nit maanaam Sénégal gis nga nit boo leen buñ la nee yow yaa jiite lii xamal ne ñëpp nga jiite amul ku ndaw amul ku mag amul ku xees amul ku ñuul ñëpp nga jiite gis nga lépp lu con li concerné ñëpp na ko ñëpp bokk. mais gis nga beddi baaxul gis nga beddi lii tubaab di wax discrimi discrimination xam ngeen euh, daanoon ngeen dégg ci école de primaire ñuy jàngal xale yi naan apartheid est un crime contre l'humanité mais gis nga lii discrimination bii. dafa gën a salte sax apartheid na ci nit def attention gis nga discrimination mooy waral nit bu demee dem dem ba xamul lu muy def mu taxaw rey boppam. jërëjëf am na solo mbokk bi. kon nañ ci def très attention baaxul lii nag buñ ko jàppee ne maanaam lamb rek lamb rek la rek non non am na beneen mbir ci biir te gis nga man nag dama dul wax ci lu ma xamul mais na nit ci def très attention gis nga lobby baaxul te gis nga lobby bii def lii dina tas tasar mu neex mu naqari dina tas tasar gis nga addina bi nit ñàkkul fu mu waxee bu la neexee nga bokk ci sa sa néeg wax fa looy wax 24 heures addina bi yëpp xam ko c'est que nag wax bu bari bi moo baaxul mais gis nga bu ñu arrêté wul lii lii bu arrêté wul nit boo ko teree mu waxee fii rek dina waxee ji feneen gis nga nit ci lu mu bokk kenn du ko ci genne mënoon na demee neneen tey mënoon na demee neneen tey parce que tey tey tey tey administrativement rek bu ñu waxoon ni ci wàllu luwaa rek tey police ñëw ci salle bi ku ku nekkul promoteur bokkuloo bu ñu laajee promoteur promoteur critère bu promoteur wax dinaa ko wax. critère bu promoteur am boo bu ma la ko waxee nga xam ne kii am na ko kon lan moo ma tere bokk ci kii bi mooy ni ma la wax sànq rek am na ñoo xamante ne sama présence fii daf leen a arrangé wul mais nag ñu bañ ko ñu nangu ko bu ma waree wax dinaa wax lépp lu ma bëgg wax dinaa ko wax incha allahu rabbuna merci beaucoup. <laughs>